xaar Ousmane jëlama gars yëpp moom la ñuy xaar Bougane Gueye Dany la taxaw di xaar ñoom ñëpp gis nga nag Tambacounda ñu ngi noonu mais gis nga oto yi caravane bi gudd na caravane bi gudd oto yi rang bi gudd na li topp li topp Bougane Gueye Dany si ay oto bëri na li topp Bougane Gueye Dany si ay li topp Bougane Gueye Dany si ay oto bëri na si ay mbooloo bëri na mais mais us Bougane li ko topp si oto mais dafa mel ne président mooy génn mais c' est extraordinaire di ko topp si oto bëri na trop trop trop trop ah waaye bëri na trop ah sécurité bi également foo natt weesu si station bi Fallou taxaw euh, saafonteeg ñi xam mooy am di jàmm yi ak fan si euh, borom Sénégal seet sama xarit la xam naa nag bëgg na ma wax si micro am waaye foog nga neexal ma wala nga sinam ma sinon du ma wax sa micro ndax maa lay daaneel micro Sénégal seet dama koy wàccee di wax si micro seen teranga soo bëggee si direct soo bëggee am si rek yéeg foog ma wax sa micro mais dama lay delloo sa micro ndax micro Sen Teranga laay waxee voilà mbokk internet yi nga xamante ni yéen a ñuy topp euh, ci Sen Teranga TV ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy ñu ngi fii nga xamante ni yaa soxor nag kon delloo koy delloo delloo koy delloo waxal fi mu waxal voilà pour yi nga xamante ni ñuy topp gis ngeen Assane Diouf a ngi noonu di séddale spécimen Assane Diouf mi ngi noonu mi ngi noonu Assane Diouf mi ngi séddale li nga xam mooy spécimen yi fi mu ne Assane Diop mi ngi seede spécimen yi am na benn booy boo xam ne ko tàllal loxo booy bañ am na koo xamante ne jëlal lii mooy démocratie ku nekk ak ki nga àndal ku nekk ak nga choisir te dañ koy nangul en fait na ànd ci respect mais Assane Diouf moom moo nekk di expliquer yenn ci ay militants ak ñu comprendre wala ñu xamee li nga xamante ne mooy spécimen yi seddale nag wax naa la ni la ya ñu euh, espérons que rek euh, fii benn détail wala benn coow fi am en tout cas Barthélémy Dias ak euh, Bougane Gueye li ñu ànd ci ay sécurité na waar trop trop trop trop Euh, dégg nañ également que ni Bilal Diatta daal dinañ ñibbi fi nga xamante ni moom mooy euh, dakaar donc voilà ñu jéem xool nu ñu euh, nu ñu nu ñu nu ñu taxawee rek nu ñu nu ñu taxawee pour approcher ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany us nañu xaar nañu xaar bu dee oto bi day avance parce que on nous avait annoncé que ni Bougane fii lay taxaw ñu jéem a jël xool élément baxtu pourquoi pas ñu nañ nañ ko daal di jël léegi moom élément baxtu léegi-léegi mu daal di yëkkati ay kàddoom mais en tout cas dafa mel ne Bougane nag foofu ci rond point la bëgg a taxaw est que duñu jéem a xool est-ce que duñu jéem a xool ndax ñu wàcc est-ce que duñu jéem a xool voilà ñu jéem a xool euh, si y a la possibilité quand même de descendre ñu daal di wàcc. Barthélémy Dias moom mooy jóg noonu Barthélémy Dias Barthélémy Dias jóg na us tëbal ndànk us Barthélémy Dias moom moo nekk noonu Barthélémy Dias moom moo nekk noonu mbokk internet yi nga xamante ne dañu topp ci seen Teranga TV donc vous êtes en direct Barthélémy Dias ak Anta Babacar Ngom ñoom nekk noonu tey seen spécimen di ko brandir ci kaw euh, la population de Tambacounda génn nañ génn nañ us nañu jéem a ñu jegee suñu oto mais di leen fàttali nga xamante ni oto bi la Thierno Bocoum nekk mais Barthélémy Dias également jóg na nañu jéem a nu ñu jegee suñu oto parce que xam na mooy gën a wóor pour déplacement bi ak yéeg wàcc bi Euh, Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany gars yi nee nañ na génn gars yëpp nee nañ na génn gars ñu ngi taxaw nee nañ nee nañ Bougane na génn usul ñu gars nee nañ Bougane na génn. non mais ziar ziar naa ñëpp ziar naa ñëpp maa ngi ziar ñëpp di ziar yëpp di wax ne maa ngi sant bu baax je me sens en pleine forme. dañ la doon xaaraa Dakar yaakaaroon da ngay dem démb mais ñu gis na nga toog loolu lan moo ko waral ndax euh, bés bi moo la toll le liggéey bi fii la nekk liggéey baa ngi fii les sénégalis son là on est là avec tous les leaders le travail et ça se passe sur le terrain et je serai sur le terrain encore sur le terrain et toujours sur le terrain. alors euh, ñu gis ni également leader yooyu noonu boobu ba léegi saa yu xàddiwuñu ñu ngi à Tambacounda déjà seen soutien la nga ko dundee déjà de l' mais euh, dund ko ak euh, fierté. dund ko ak ay nit ñoo xam ne dañu àndandoo euh, am benn objectif c'est de tout faire pour avoir la victoire de l'opposition la victoire de Sàmm Sa Kàddu au soir du 17 novembre incha allah pour que assemblée nationale am beneen taxawaay au niveau de l'assemblée nationale opposition bi gagner majorité au niveau de l'assemblée nationale pour que cuune yi fi nekk ñu ñu randal leen voilà daggkatu juuti mais gars yi mais gars yi ñu commencé nañu ne Bougane dafa feebar Bougane dafa lii prison mais man je me sens en pleine tey jii laa gën a laa gën a xeere. yeah tey laa gën a taxaw tey laa gën a nekk en forme je suis en forme honnête honnêtement. mais mais dégg nañu Ousmane Sonko temps yi dafa mel ni Bougane dérangé parce que dégg nañu Ousmane Sonko à deux reprises mu wax bu ci sax nee na dañ la ne coppet yóbbu la waaw man yóoxuwuma. man yuuxuwuma dew ma infirmerie grève ma de la faim donc euh, c'est dommage que ñu nekk ci euh, discours de bas niveau boobu mais nag euh, xëy na ñoom seen xel foofu lañ toll mais man baal naa ñëpp je pardonne à tout le monde. mais réew mi yëpp ñu la noo ko dundee déjà si kilifa diine ñëpp daawee demandé ta libération. mais xam nga injustice baaxul. et noonu la ko sénégalais yëpp dundee noonu la ko sénégalais yi gisee. sénégalais buggul injustice rawatina nag boo xamee ne je crois que démb tribunal bi wane na ne que dañ ma tooñ tribunal bi wane na ne que ngeen baal ma ci kàddu gi encore lépp ay fen la mais comme dañu nekk ci fen nekk ci gouvernement fen nekk ci ñoo xam ne ci fen la ñuy yëngu euh, dëgg rek nag mooy mujj moo tax ba ñu yeggee ba ci dëgg gi dëgg du mën a fen démb. mais est-ce que xam ngay wax nii dugal na c'est c'est des fen mooy lan lan nga bëgg ma wax fen fen da nga bëgg ma làkk ko ci beneen làkk fen amul fen moom fen la rek. kon tey la bi gën a taxaw. mais déggoo li ma la wax c'est-à-dire pour que yow sa doom am dund bu gën bu fekkee ne dama war a dem kaso. pour la victoire écrasante. de l'opposition la victoire de sàmm sa kaddu incha allah. léegi-léegi voilà xam naa dinañ ko amaat léegi-léegi euh, dinañ ko amaat euh, Mbissane voilà léegi-léegi dinañ ko amaat nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany mi Dias génn na ci otom ouz ñu dem xool nu ñu rapidement duggee ci euh, suñu oto. yëngal waaw voilà pour yi nga xamante ni yéen a ñuy topp mbokk internet yu Sen Teranga si ah, voilà ba jël ma yëg. man maa ngi koy woo rek di ko laaj ndax mi ngi jël wala jël. mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi caravane. ay wax na ma. waaw sama waay la voilà ah, mbokk internet yi nga xam ne nañ topp. Euh, gis nga Assane Diouf Bougane Gueye Dany noonu génn us jubal ma ki am Bougane Gueye Dany bu baax a baax Bougane Gueye Dany génn na si oto bi pour yéen ñi xam ne moom ak Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany génn na si oto bi san san voilà voilà Bougane Gueye Dany ngi noonu di seetal li nga xamante ni mooy spécimen yi Bougane Gueye Dany noonu mi ngi noonu di brandi li nga xamante ni mooy spécimen yi ànd ak euh, Pape Djibril Fall voilà yi nga xamante ni ñu topp mbokkante noonu yi Bougane Gueye Dany ngi noonu génn na ci li nga xamante ni mooy oto bi misaan waaw voilà Bougane Gueye noonu mais mais mais mais mais Mbisaan yow mi nga xamante ni yàgg nga Tamba man gis naa dem nga fi daanaka fukki fan gisuma nga leere nii mais Bougane moom leer na waaw ah, noonu la xam naa hôtel bu ma fanaan moo neex rek xam naa quoi waaw noonu la demee kon euh, mu nekk noonu ñu nekk ci caravane euh, sàmm sa kaddu kon ñu ñuy gis noonu ci écran bi ngeen xam leen muy euh, Bougane Gueye Dany mu ñu libéré démb ak Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany nekk à la onzième position sur la liste nationale de sàmm sa kaddu Pape Djibril Fall nekk à la sixième position seen ginnaaw nag juste derrière eux y a la tête de euh, Barthélémy Diaz y Barthélémy Diaz mais Anta Babacar Ngom mi nga xam ne ni mooy euh, deuxième ci liste donc mu ngi noonu caravane bi nag depuis euh, une heure mu ngi nekk di sillonné Tambacounda donc mu doon caravane bu mag a mag mag visionner cette ville pour marquer quand même li nga xam ne ni ñoomit dañ koo jàppee une victoire une victoire parce que démb lu tukkee ci tribunal bi gis nga leen nuñ ko accueillir donc euh, avec joie euh, avec joie lañ ko accueillir pour marquer le coup. waaw génn na léegi dugaat na. donc euh, foog suñu chauffeur bi taxaw aussi parce que dañu sori trop Bougane Gueye Dany dafa mel dafa wàcc otoom di wax ak gars yi di saavante ak gars donc euh, pour yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp donc euh, foog ñu wax ak suñu chauffeur bi quand même parce que chauffeur bi tamit. waaw taxaw. waay voilà. sëwër ne ma muy taxaw voilà comme ni nga gisee Pape moo nekk noonu ci kaw euh, Pape Djibril Fall nekk noonu sol naka subu blanc Barthélémy Dias moom nekk si kanam euh, Bougane Gueye Dany euh, Bougane Gueye Dany moo nekk si kanam ak Pape Djibril Fall Barthélémy Dias mi ngi si ginnaaw Ousmane Pape Djibril Fall mi ngi noonu mais Ousmane Barthélémy Dias également mi ngi si ginnaaw Barthélémy Dias dafa mel dafa bëgg a voilà gis yaa ngi noonu Ous ok bu ngay amal waaw moo nekk noonu ay waay doo nit Barthélémy ngi noonu uus maa ngi lay jàpp pour nga bañ a daanu sama xarit bi ndeysaan nga xamante ni moom mooy voilà ni nga koy gisee bokk internet yi nga xamante ni yéen ñuy